nappaaje bi salfaañe bi bëgg ñoo takk mbuumbum ñaam ñu ne ñoo lànk loolu tax ñu taxaw fii constitution nag moo ñu may pouvoir bu ñu meree kontaanuñu ëllëg ñuy jamante paaka ñu génn ci mbedd mi wane suñu naxar wane suñu ñàkkum d'accord moo tax donc ñu def manifestation bi muy lu am solo ñaxtu la pour wax déedéet nanguwuñu tey nanguwuñu ëllëg. dégg naa léegi nga yi lu tax. waa il faut ñu reporter ko ndax mënuñu à un mois et ci élection yi am manque d'organisation bu mel ni dafa mel na làmb ju tas wala sabar gu tas xam nga ni élection dafa sérieux kenn mënu ko organiser ci yi condition kon boog ma wax ni parrainage bi baaxul ndax am na ñoo xam ne signé nañu nit ay nit fukki yoon loolu histoire lay indi euh, fichier bu baax bi jotuñu ci carte d'électeur yi ñoom seeni nit jot nañu seeni carte ñun suñuy nit jotuñu suñuy carte seeni carte xam nga yooyu yëpp baaxul def fi mooy indi li ñuy wax instabilité ñun dañu ragal xeex ñëw ci suñu réew te réew mi lañu am demuñu fenn fii la ñu toog kan book dañu bëgg yëf yi jaar yoon élection yu jaar yoon yëpp jaar yoon ñu nekk ci jàmm kan boog élection yi warul am warul am le 24 février dañ ko war a puus ñëpp toog ñu organiser ko organiser bu baax moo gën ñu kay patam patamee moo gën ñuy ñàkkal fayda Sénégal ba nga xam ni ñi nga xam ne dañu déposer seen candidature nekk buntu conseil constitutionnel di kurpañante di dóorante ba àddina bi yëpp teg ci bët loolu laa bëggoon a wax